alors Momo nga ne euh, animateur du Sénégal say référence la ñu mais xooloo leen yu extérieur yi ngay gën a xool donc lan lu tax nga waxoon lool. bon peut-être les gens n'ont pas n'ont pas aussitôt compris fi ma doon waxee. Mhm. bon fi doon waxee rek mooy xam nga y différence entre référence ak idole xam nga. Mhm. mais tey defe naa ni. ñun ñi nekk suñu dëkk doy nañ royukaay tey euh, bu ñu demee ba ñun ñu ñeme wala ñun ñu am fit wala ñu am envie def télé. Mhm. c'est grâce à ñi fi nekk xam nga euh, présentateurs yi fi nekk tey bu ñu doon dem ci réew tubaab dañ fay toj tellement que ils sont pétris de talent. Mhm. seen talent kenn du ko naataable ci réew booy lim du jeexal xam nga ñoom Moïse Ambra Gomis Ambroise Gomis ñoo ko fi commencé woon ñoom Michael Souma mhm. sunu maam Maguette Wade xam nga ñoom Boubacar Diallo ñëw eggali ko Pape Cheikh mhm. Diallo DJ Prince xam nga ak ñeneen ak ñeneen xam nga voilà donc mhm. euh, defe naa ni ñooñu ñooñu wan yoon bi ñun ñun jeunes yi et que bu ñuy bu ñuy bëgg di prouver à chaque fois suñu talent bu ñuy bëgg di prouver à chaque fois euh, lu ñu mën c'est juste pour que seen xel ñoom dal Mhm. c'est-à-dire pour ñu xam que ni relève am na fi xam nga mhm. mais tamit yoon la parfois nga nga viser un peu loin xam nga euh, peut-être samay samay samay ambition la xam nga xam nga boo nekkee xale mhm. rêve yi dañ la koy permettre quoi tu es permis nga nga rêver tuuti xam nga xool au-delà ak yooyu noonu peut-être dama ko wax juste que ni euh, dama ko wax juste peut-être tamit xëy na sama sama envie wu xale. Mhm. xam nga envie wu dépasser frontière yi ah, peut-être lool envie moo ma wax loo quoi xam nga ak mhm. bëgg-bëgg. mais waxeewu ma ko ci beneen côté du xeeb du dara. xam nga mhm. su ma leen di xeeb mooy xeeb naa sama bopp. su ma leen di xeeb mooy xeeb naa sama papa. xam nga parce que ci animateur yi la bokk. jamais ma def loolu. d'accord. Ah. yow lan nga gis ci animateur étranger yi loo xam ne peut-être fii buñ ko defoon ci lay gën a yokk. bon man étranger yi li may gën a neex ci ñoom mooy seen plateau yi ni muy rafetee. d'accord mais fii amuñu moyen tamit. waaw télé yi duñu duñu sortir moyen peut-être nag foofu laay waxee. xam nga ma mooy te rêve nga di présenter plateau yi mel noonu. Mhm. xam nga plateau yu rafetee noonu lumière yi tiim la et tout que mhm. ñun peut-être dañ fa toll mais tollooguñu foofu noonu quoi. Mhm. xam nga booy. dëndu animateur yëpp looloo ci ne. Mhm. xam nga mais yéen seen problème est-ce que du jàng bi aussi parce que animateur yu nekk fii yëpp peut-être ñu gën a aay Boups d'accord jàng na ak ñeneen ak ñeneen. Mhm. Euh, mais est-ce que du niveau d'étude bi moo tax ñuy ñuy yem fii. waaw niveau d'étude mhm. certes mais bon niveau d'étude tamit man man jàng naa xam nga jàng naa ba am sama bac ba egg licence tu vois maa ngi maa ngi jàng ba léegi. xam nga même bu fekkee du lu ñuy fësal wala xam nga mooy loolu mais euh, maa ngi cherche toujours à m'améliorer mhm. ak yooyu donc euh, niveau d'étude ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ciy gëstu bu baax quoi. xam nga mhm. loo gis ci àdduna jàng ak formation bi formation voilà donc mhm. loolu la quoi loo àdduna jàng la et que ñi ngi ciy def lu ñu mën quoi affaire yi doo tëb tëb rek egg foofu noonu non c'est un long chemin. xam nga chemin la boo xamante ni pour nga pour nga pour nga egg fii. foog nga liggéey. Mhm. liggéeyu animateur jàng daf ci bokk daf ci am rôle bu am solo. Mhm. xam nga donc. mais est que ak façon bi ngeen koy defee yéen animation bi teg musique ci télé bi wala commenter benn affaire dina tax ngeen egg foofu ngeen bëgg a egg. bon xam nga aussi tamit il faut pas oublier ko est au Sénégal. Mhm. il faut pas oublier que ni ñun décidé wuñu li ñuy def c'est-à-dire téléspectateur bi moom mooy xool li mu bëgg ñun ñu koy def. ñoom la ñuy liggéeyal. téléspectateur li leen di neex ñoom la ñuy jéem a def à chaque fois li leen di def li leen di jox plaisir ñun moom la ñuy jéem a def